asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi tey ñi ñëw ak yéen ci naafila ak juróom-benneel guddi gi naafila ngi tënku ci ñaari rakkaa bu ci ne fatiha ben yon aqul huwallahu ahad fuk yon ak ñaar mbok yi ñu baam war ko ñaar rak'a la fatiha ben yon qul huwallahu ahad fuk yon ak ñaar mbok yi tey loolu lañ leen doon indil ci naafileeg guddig juróom-benneel gu juróom-benneel gi kon nag mbokk yi ñu joxati ñu jox leen dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allah. allahu akbar. <clears throat>